taxawu ak jàppale ñi nga xam ne dañoo amee jafe-jafe ci mbënn mi fii ci Touba Mbacké nit ñaa ngi bàyyeekoo fu ne di ñëw di indi seenu jàppale taalibe yi yi nga xam ne ñoo nekkee ci diwaanu Kaolack ci njiital El Hadji Seyni Seck mi nga xam ne moo fa nekkal xalif général des mourides ànd koog Serigne Babacar Mbacké mu kabaro ak mboolem kilifa yi ñoo yabaloon Serigne Moustapha Mbacké Abbas mu àndoon nag yeneen jëwrin ngir ñu ñëw indi li nga xam ne moom la taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci Kaolack jàppale ñii loxu ci mbënn mi ñoom nag jébbal nañu kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nazamaho lu toll ci fukki million ci suñu koppar yu teg fanweeri junni ànd ak limub yére yu takku ak ay dàll loolu nag ñu ngi ko indi woon ci samedi gi dëppoo nag fukki fan ak juróom-ñeent ci weer octobre atum 2024 fii ci Touba Mbacké waaye daal ci gàttal Kaolack gépp a ngi soxna yaa nga nële tuut tànk yaa ngi fii góor yàlla yaa ngi fi ànd nañoo Kaolack gépp gépp gépp gépp gépp dikk ci woote bi te di leen xamal ne liñ fi àndi tuuti na ba mënuñ koo tudd waaye ndigal may nañu ñu tudd ko ndax sëñ bi biñ ko ko joxee waxoon nañu ne suñu yegsee ci si nañ leen ko leeral waaye tuut gëm tuut ca ñun taxoon nañu def ci àndaale woon nañ fukki million ak fanweeri junni wàllu yéere nag. andi nañ ci 2000 pièces yu góor yu jigéen yu mag ak yu ndaw waaye sëñ bi nag fii kenn di fi wax qualité waaye am na ci yére yoo xamante ne ku ko gis xam ne fa mu jóge yëg fa mu jógee ñooñu yëg nañ ko moo tax fa mu jëm dinañ ko yëg kon ngir bañ a guddal daal Kaolack yi ngi dikk nañ fi di leen ndokkeel di leen jaajëfal di leen siyaare di leen massawu ci coono yi di ñaan itam liggéey bii ñu fi andi niñ koy xeeb xepp xeeb xeeb ngeen nangul ñu ko. waa kaw Kaolack nag nee ñu li nga xam ne moom lañu indi xeeb nañu ko lool waaye nag ab tàmbali rek la. sëñ Babacar nag wax na ne seen seeni nee na ko dañoo ñëw andi liñ fi andi waaye suñ demee itam ñu ngi tàmbali dem rootiwaat rek feek sëñ bi daal newul leen toog leen ñu ngi ci ànd ak yéen ci guddi yi ak ci bëccëg yi ngir bañ a guddal. Bousso ñu ngi sant ñëpp daal wax dëgg yàlla Kaolack yëpp daal wuy si nañ kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nazamoo te Serigne Mountakha Mbacké teg liggéeyub taxawu ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënn mi fii ci Touba Mbacké ci seen loxo ñoom nag sant nañ bu baax a baax waa Kaolack ci seen jëf ju ji nga xam ne jëf nañ ko lépp ñu teg ko ci loxoy Serigne Moustapha Mbacké Abbas mi nga xam ne moom moo leen fi teewaloon ànd kook mboolem jëwrin yi euh, nuyoo bi nag ñu ngi koy teg ci loxol Sering babakar mom nga xamne mom ngeen delegasi mu jité délégation bi mu jotali ñuko ko Cheikh tégal ñuko ko ci loxob alay Sini waaye nak ci turu serigne babakar ba moom ñu ngi ci nuyu sunu mbokk mi di serigne mustapha kami serigne Abbas ak rakam yi mu andal di nuyu alaaji Ndonga Caam buñ ko tuddé tudd nañ bolem jankati xasida yi nga xamne ño nek ci di yóbbante nuyu itam ci alaaji sëriñ Diop ma nga xam ne mooy imam bi Serigne Basirou Lo Cheikh Serigne Cheikh Basirou Lo ak mbooleem kilifa yi fa nekk di nuyu sëriñ Ndaw mi nga xam ne moo doon jot léegi xam naa ñàkk añ gi feeñagu ci feeñul ci waxtu wax ji leer na lool dara rafet Kaolack nag dañoo yàgg yoonu Serigne Touba yi naka jekk ba àddina di jafe mbir yi di jafe it Kaolack moom loxoom mos a jóg ci ligueup Serigne Touba liñ ci fekke wutit mag ñi nettali nañ ñu ko jamono ñi liggéey juma ji daay daan jógee Kaolack bu daan ñew ñëpp dañ koy setan parce que ñu amon nak mag ñi ko fa jëmbaton dafa melne bu mag ña demee it bayyi nañ fa Pastef fa yéen nga ci dox doxin wu rafet taxaway yi ngeen di am ci yoon wi sax waxtu yoon wi soxla ñëpp dañ ci tek seen bëtt Eh, moo tax nak lépp lu bax lu meuna don su ngeen ko gisse guti dafa agseegut way mi ngi coon wi di ñew ndax ci biir liggéeyal Serigne Touba ci lu bax lepp nek te Serigne Touba la don liggéeyal ba samay morom rawma nopp mësu koo dégg bët gis te nopp du ko dégg bët gis kon nak fi ngeen nek rek fofu moy mbir ma sax ci liggéeyal Serigne Touba rek nak da dul keur pay xéewal yi bari na lool ku ne naan li ma sëñ Tuubaa faye waaye sëñ Tuubaa fayegul kenn ndab la rek lu ñu duy moo tuuru bay ragalaat mën ngeen a di indi seenu jàppale jëm ci ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi ci diwaanub Touba ndax liggéey bi mi ngi dox bu baax a baax waaye des na lu bëree bari